Jenegitelu Sensen Rumi Venkat Teve. bismillah dal ajamu ak mari ci xibaar mardi 10 septembre 2024 mbiru Cheikh Oumar Niane jamono yi daal dinay nak yëngal réewum senegal lol moom mi nga xamee ne moom di Cheikh Oumar Niane yëkkati ay revelation daal ya, ya, eh, kan, oh, di koy teg ci yoonu murit mu doon loo xamee ne métti nañu bare bari waaye boobee la vidéo nag mu mel ne na ndax vidéo boobu kat 2015 la ko Cheikh Oumar Niane defoon ñu daal di indiwaat boobee vidéo di nag naqarlu wax jooju nga xamee ne Cheikh Oumar Niane wax na mu mel di nay bari lool ba ay menace de mort am ci ay saagante ndey ak wax yu ñaaw ci diggante Cheikh Bara jay ak ñi nga xamee ne doon nañ manifesté wu foofee ca Touba ñu ràññee ca kii di Khadim Boussa Mame Mor Baye ak ñeneen ñoo xamee ne daal jàppees nañ ne ah, la ñu doon deful rek ay manipulé la ñu bari ci askan bi tuddee ndax kat ña ngay xam la na rek ñoom ci seen biir ba manifesté wu amna na koo xamee ne daan na yëkkati kàddu yu ñaaw daan ko teg ci yoonu murit ñu koy woowee Cheikh Thiam nekkoon ca bitim réew moom moom ma nga woon ca biir ah, manifestation bi nga xamee ne ñoom ñii di xaadim eh, bu sa ak mamor bay doon nañ ko def kon mu mel ne bu lu yàgg rek kon war nañ caa boole seex caam moom nga xam ma nga ci seen biir ñu bari loolee la wax te bàyyi loolu dara yoonu murit kon daal mu mel ne am na lu ci yees ci kaaw Cheikh Omar Diagne bi nga xamee ne rek daal dinañ nag yëngal réew mi semaine iya yi yëpp kon mu mel ne fi mu toll nii bu sukkandikoo ci source yi ñu jot premier ministre bii di Ousmane Sonko vers vingt trois heures daal nag dem foofe ca Touba daal di nag toog ak xalifa général de murit bi ci affaire u Cheikh Omar Diagne nag leeral nañ ci lu bëree bari ak manipulé yi nga xamee ne daal dina cay am moom mi di premier ministre bu Sénégal kon daal dinay def loolu dem fële ca Touba ci vingt trois heures du matin waxtaan ak xalifa général Serigne Mountakha Mbacké yaa ngi fi yàgg te wér loolee la ñu jot ci information kon mu mel ne daal coowal Cheikh Omar Diagne moom mujjee na nag yëngal réew mi lool ci nag vidéo boo xamee ne ba mu ko defee ak léegi daal daanaka mat na fukki at ñu daal di koy génnewaat nag daal di koy nag wanaat Sénégalais yi ñu bari daal di jàpp ne lii lu bees la ñu bari nag daal di jàmmaarloog Cheikh Omar Diagne ñi nañu ci des nag daal di koy bëgg a sippi Sonko ak Jomaay mu mel ne bari nañu leen doon dànkaafu di wax ne Sonko na ngeen leen ci génne ku sàkku ci wax ji ndax kat bu fekkoon ne rek wax ji waxu euh, président la kon euh, mel na ne kon président euh, Macky ba fi nekkoon ca booba jamono wax ji nga xamee ne Cheikh Oumar Diagne na ko gis ñu kenn na ko xeex daal nee noom Cheikh Bara Ndiaye la ñu ràññee woon ci ñi nga xamee ne doon nañ xeex ngir wax ji nga xamee ne dina koy wax kon bu ñu demee ba atum mu mel ne waxi Cheikh Oumar Diagne jooju indiwaat nañ ko mu mel ne daal ñu ca sukkandiku di xeex kenn xamul rek lan la bëgg ñu bari ay manipulé lañ ko jàppee ci jëf yi nga xamee ne daal doon nañ ko def nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne waaye daal kon ki nga xamante ne nag moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko ni ki démb daal dinay dem fële ca Touba ci nag 23 heures daal di nag waxtaan ak xalifa général bi ci lu sore sore ci affaire Cheikh Omar Diagne xamal na ko ci manipulé yi nga xam ne am na ci ak yu bëree bëri kon foofu la tool